bërki démb ci dimanche ji danoo toog ba ci yàgg rek information bi wàcc ñu ne Ousmane Sonko nee na day wax Ousmane Sonko ma nekk ca prison ba ca Cap Manuel ñu génne xibaar bi ni Ousmane day wax biñ ko génnee rek ñu mel ni dañoo jëfur ministre de la justice Aïssata Tall Sall ni ca tonet daal di génn ab communiqué dimanche nga xam ne normalement waroon naa nag këram kenn xamul fan la jaar ba dem bureau am defar communiqué parce que damaa jàpp ne communiqué bu koy def dem na bureau am defar ko commencé di xoppaatee ka nappaate naan Ousmane su waxee moom dana jël ay daan ci ñi nga xam ne ñooy ay avocat ak ña fa doon dem ak moom ci bopp man ñii xanaa dégguma fi woon ñu ni ñoom danoo may israélien leen di xelal xanaa xelaluñ leen ne loolu ay opération de com la woon rek xam naa ne Ousmane toog cëm néegam di leen reetaan ñu yaakaar ne Ousmane daa génne dara lu mu war a wax alors que Ousmane comme ni ko ñëpp xamee da leen a raw di dem du yàgg yàgg yàgg maanaam ñii cuune gin cuune man daf maa yéem man information boobu boo ko yëgee te xam lan mooy communication mais waroon ngaa xam ne Ousmane Sonko day waajal rek pour. provoqué leen bu ko defee ñoom ñu préparel ko la terrain pour que Sénégal yëpp toog di ko déglu te loolu lañ ko defal ñoom nguur gi ba sax gis naa ñoo xam ne nee nañ war nañoo sant nguur président Macky sàll ak ay Tall sàll ak xëy na kilifaam gi ko defloo ba nga xam ni tax na sénégalais yëpp ak sidi yëpp di waajal ni Ousmane day wax bu ko defee message bi nga xam ne moom la bëggoon a jàllale mu gën a mën a jàll kon nag encore une fois wane waat na xarañteem wane na ni niveau de communication bi mu nekk ak stratégie niveau stratégique bi mu nekk daanaka ñim jàkkaar lool buñ ko jaayul doole mun ñu koo jege ñoom doole rek lañ ko mun a jaay mais en terme de stratégie du seen morom parce que loolu nag jarul woon aay nag wax dëgg yàlla communiquer Aïssata Tall Sall li mu wane mooy ndaw si amul benn expérience su amoon expérience danaan nekk déglu parce que xam na ni loolu opération de communication la woon pour balayer le terrain pour baliser le terrain pour que nit ñi gën a mën a waajal li nga xam ni moom mooy information bi mu buggoon a jàllale moom Ousmane Sonko mais xamul tax loolu lépp duñ ko mën a gis non seulement ay cuuna lañ mais danoo bañ Ousmane Sonko baña baña baña bañ ba lu Ousmane def rek ñoom du ñu gis lenn lu dem faagaagal Ousmane Sonko parce que loolu yàkkamti nit kii loo ko bañ bañ bañ bañ da ngay ànd ak dal ni ànduñu seen sago ci mbirum Ousmane Sonko buñ nee Ousmane sonk rek ñoom ñëpp jóg di rip rippi Aïssata Tall Sall loo yàqe sa weekend di dem di wutub communiqué booy def ci Ousmane sonk fu leen Ousmane Sonko du seen um noonu bu ŋaangee rek ngeen di bëgg a dee et puis yéen Ousmane Sonko bu nekkee ci biti moo ngànk actualité bi mel ni ko yore ab curseur di leen jëmale fu ko neex. bu nekkee ci prison bet moo yore curseur bi leen jëmale fu ko neex yéen ak presse bi système dinaa ñëwaat ci kanam waaye yéen war leen a xoolaat seen rapport ak Ousmane sonk Ousmane Sonko du seen noonu lan moo ko fi jar Ousmane day wax rek ñoom ñëpp ñu jógandoo ku nekk di wax moom ay sata ne la ca lay daan di defaru defaru communiqué di commencé di xoppaatee que wane ne moom pare na pour jàmmaar jàmmaarloo koy jàmmaarlool Ousmane Sonko bu nee damay communiquer mais da ngay déglu xool lu muy def mais amuleen ci dal dara dalu leen dal leen dal leen doomu jàmbur ji ngeen siñ fan dal leen dal leen lan ngeen di lay layee ka cëpp cëpp nii lii mu su fee am Sénégal ak nguur boo ko yoree yore doole ji dangay ngay am fit dangay ngay ànd ak dal gëm ni man li ma yore nii bu ma ko tegee ci yoon jàmm rek ay am ci réew waaye nag olof yi dañ ni kuy aj dafa ragal ku téen boo ajee ku téen rek nga tiit dafa ne li nga aj gis na ko loolu moo tax bugg leen kenn yëngatu jaay doole ngeen fi nekkee suba ngoon mais loolu moo taxit ngeen di dafay ay erreur parce que loolu ngeen def dimanche wane na ne état bi amul sérénité wane na dese ngeen a xarañ wane na ne ñi leen di conseiller ay cuune lañ wane na ni yéen Ousmane Sonko amu leen benn sago ci lépp lu muy def. kon nag war ngeen a xoolaat seen bopp ngeen xam ne Ousmane Sonko du seenum noonu li am solo nag ci mbir mi mooy Ousmane ko joxe information bi information bi mu joxe mooy lan mooy ni moom day lancer campagne parenage bu Bassirou Diomaye fay loolu nag bi mu ko joxee dëkk bi riir fépp foo nit ñi di kontaan daan ne Ousmane lii mu def stratégie la boo xam ne bu efficace la parce que ñoom fooguñu ko woon may leeral foofu nag ci ñi nga xam ne ñoo nekk di jéem a lëndëmal xelu sénégalais yi Ousmane Sonko musta wax ni Bassirou Diomaye fay mooy plan B musu koo wax amul fenn fu mu ko waxee. presque du système bi ko wax dinaa ci ñëwaat ci kanam ak seen seeni i chroniqueur ku ne di wax loolu amul Ousmane Sonko musta wax ni Bassirou Diomaye Faye mooy plan B wam plan B amul Bassirou Diomaye fay candidat la comme ni ko ñëpp nekk ay candidat maintenant nag candidat boobu mu nekk teewul woon Ousmane Sonko nekk candidat teewul woon El Malick Ndiaye nekkoon candidat Guy Marius Sagna nekkoon candidat Abbas Fall nekkoon candidat Birame Souleye nekkoon candidat ñoom ci seen parti ñoom ñooñ laa fa xamoon man ci ay candidat xaw ma fa keneen candidat Pastef yi ma xamoon man yi nga xam ne bii euh, déclaration candidature yi amee mooy ku nekk dem jëli say fiche à travers sa euh, mandataire ñoom juróom ñooñ laa xamoon ci Pastef ñu nekk ay candidat plus Ousmane sonk ñoom ñii rek laa xam mooy Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye El Malick Ndiaye Birame Souleye Guy Marius Sagna ñii laa xamoon donc ñu nekkoon ay candidat waaw léegi euh, bi loolu amee ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk yeneen candidat yi à part Ousmane Sonko parce que communiqué bi ma gis man Ousmane sonk si wu euh, si wu ko mais communiqué bi ma gis Abbas Fall la ak El Malick ak biram Souleye ak Guy Marius ñoom ñeenti candidat ñoo taxaw daan dañuy appuyer la candidature de Bassirou Diomaye Faye ñoom d'accord nañ ci nag seeni parrainage mais bàyyi parrainage yu Bassirou Diomaye fay mu dem parce que bëgguñu woon ni am dañoo bëggoon am benn lisibilité ci li parrainage yi di demee ñoom ñeenti candidat yooyu ñoo def loolu mais en euh, fan la ñu teg ni Ousmane Sonko dafa wut plan B que Bassirou Diomaye mooy plan B mais fan lañ ko teg Ousmane moo leen wax daa wut plan kan moo leen wax ni Bassirou Diomaye Faye mooy plan B wu Pastef Ousmane Sonko di candidat di xeex. yéen ñëpp ngeen gis ko pour ñu dugalaat ko ci fichier électoral bi ñu ko dindi ci jaay doole ab juge décidé ni nan ko dugal ci fichier électoral bi heure bi waroon na nekk waroon na fekk mu yore ay fiche de parrainage am malgré la décision de la cour suprême heure bi a fekk Ousmane Sonko yore ay fiche de parrainage am cour avocat eh, état bi ànd ak ak euh, agent judiciaire de l' état dem dem saisir ko cour suprême àtte àtte boo xam ne ñëpp a ci am gàcce daane moom neenal na li juge bu Ziguinchor Sabassy fay décidé woon pour dugalaat Ousmane Sonko ci fichier électoral bi léegi da koy renvoyé au tribunal euh, d'instance de Dakar TI bu Dakar mooy tribunal d'instance bu Dakar pour mu àttewaat ko te yàggul en 2018 moom Cour suprême ni woon ci matière électorale moom du renvoyé y lieu de renvoyer tey mu renvoyé muy un revirement de jurisprudence boo xam si mais c'est catastrophique pour notre justice musiba la pour sunu réew parce que yàggul juróomi at ci ginnaaw moom moo waxoon moom même cour suprême bi ni bu dee ci mbirum euh, euh, élection la jarul ngay buñ buñ la ci saisiree boo ko kasee maanaam boo ko neenalee décision bañ ca jëloon jarul ngay renvoyé soit da ngay neenal wala nga wala nga wala nga dëggal boo ci def Euh, foofa la yem tey mu mu mu kase ba noppi renvoyé muy lu lu jaaxal ñëpp mais Ousmane Sonko mi ngi continuer di xeex parce que déjà foofa déjà jafe-jafe am na fa te jàpp naa ne rabat d'arrêt mën na am parce que avocat yi Ousmane Sonko duñu ay cuune ni ma leen xame parce que bi ñuy ñëw ci salle bi di àtte juróomi juge la ñuul bañ demee ba dakkal ba àtte bi jeexee bañ dem tëju di àtte bi ñuy ñibbi si nekk ñeent kon am na kenn ku ñëwul te ñoom bu ñuy àtte dañoo war a tóol ku ne xam na loolu ci àtte àtte pour mu mën a jaar yoon fokk ñiy àtte dañuy tóol bu ko defee fokk am boor bu ëpple bu dee déggoowul ñoom ñëpp waaye bu ngeen ñeent ngeen bu ñaar féetee boor ñaar féete boor kon léegi nan la ñuy xamee euh, àtte bi nu dogal kon ñeenti nit ñoo indi wax àtte bi lan lan lan àtte juróomeel ba ñëwul te loolu tamit moo am à la cour de justice de la CEDEAO loolu ñu bëri yëgunu ko cour de justice de la CEDEAO bi muy àtte am na juge bu ñëwul moom comme la xew cour suprême moo fa am juge ya danoo ñëw comme procès bi dafa nekkoon procès en ligne procès donc euh, euh, bu doon am ci xarala yi la bi ñu demee ba déglu ñoom moom ñoom ñoo séq mbir mi yépp ba pare bañ demee ba jël délibéré le 17 le 17 boobu bi ñu ñëwee war a jébbal askanu Afrique li nga xam ne moom la juge CEDEAO yi àtte bañ koy def am na benn juge boo xam ne moom dafa dafa def comme li Aïssata li ay satu Diallo ba def ci Cour suprême moom it loolu la def ni moom du ñëw di assumé décision ba moom la CEDEAO di jël parce que guléet wax dëgg yàlla CEDEAO ni mu taxawee ci mbirum Ousmane Sonko mii bañ a wax ci lin koy jaay doole ci candidature am daa di dem mel ni kuy dëggal ni ñoom euh, li ñu dissoudre Pastef jaar na yoon parce que amul benn yoon bu nu jalgati man jàpp naa ne loolu c'est une jurisprudence catastrophique et que li muy firnde mooy léegi réew Afrique yu leen neex mën nañ koo def nañ jaay doole képp ku fa nekk bëgg a nekk opposant mën nañ la jaay doole ba noppi sukkandiku ci li CEDEAO wax kon CEDEAO moom mooy pousse état yi surtout dictateurs yi nga bari nañ ci ci sunu sunu continent bi leen wax ne jaay leen doole opposition bi daanaka mën a considérer sax léegi Euh, mën ngeen a déclaré wu euh, ay empereur wala ay président à vie parce que euh, li nga xam ne moom lañu rafetlu ci Sénégal te ñëpp ñaawlu ko xam ne jaarul yoon dañuy jaay doole doomu jàmbur ab citoyen sénégalais bu tudd Ousmane Sonko ñu ne leen ko jaay doole yëpp dara nekku ci amul benn problème kon jàpp naa ne loolu jafe-jafe la mais li am solo mooy Ousmane Sonko dani ci li ma gis man ak ni mu demee yëpp. néewul Bassirou Diomaye Faye mooy plan B mais daf ni lancé na campagne de parrainage bu Bassirou Diomaye Faye te jàpp naa ni lool c'est un bon choix parce que Ousmane Sonko nekk la leader de l'antisystème parce que comme ni ma leen waxe élection bii nu jëm le 25 février 2024 bipolarisation la dafa am camp boo xam ni ñu ngi tudd la camp du système jàkkaarloo ak camp antisystème kaaw système bi mooy ci pour ngeen pour mu yomb ci yéen ñan la mooy képp koo xam ni depuis 1960 ba léegi yaa ngi bokkoon ci parti yi nga xam ni PS walla PDS ñoo la meññ parti yi PS ak PDS meññ yépp nga xam ni suba ngoon ñoom ñi ngi ci ay pexe pour système bi bañ a dee ñooñu ñooy les candidats du système bari nañ lool ñoo fi ëpp nag car macha allah waa ñoom ñooñu. waa système bi nga xam ni candidat bi ñu teg te mel ni ku koy commencé pouse pour mu daanu mooy Amadou Ba mooy candidat système bi bi nga xam si moom lañ siiwal ak candidat yi nga xam si nangu ñoo seenu bokk ci système bi te ñëpp xam nañ ni fa lañ bokk déjà boo jëlee Benno Bokk Yaakaar rek la fa nekk ci candidat système kenn xamul nu mu toll ndaxte boo jëlee bun Abdallah Dionne jël Aly nguy Ndiaye jël Birima Mangara jël Mame Boye Diao pour lim ñi nga xam ñoom ñoo fës ci waa APR mais ñooñu ñoo ko Amadou Ba ñoo ànd candidat système bi lañ. wala kon lu tax système bi mën a am Amadou Ba ñu am seen candidat principal mu tudd Amadou Ba ñu am seeni i candidat secondaire muy Boun Abdallah Dionne ak Aly Ngouille Ndiaye ak Birima Mangara ak Mame Boye Diao ci leen xam ba noppi nag waa anti système ñoom ñu ne leen yéen du ngeen am ay candidaa yu bari mais Ousmane Sonko au am na droit lancer plusieurs candidats donc ñee tamit système bi am yeneen candidat yu nekk ci seen wet yu bari yoo xam même bu ñu bokkul Benno Bokk Yaakaar ci candidat système bi lañ bokk. am na sax ci candidat système bi ñoo xam ñu ngi ci opposition bi ñu ngi woowee seen bopp opposition mais duñ opposition ñu ngi ci biir système bi waa léegi nag ñu am ay candidat anti système yoo xam ni ñii ñi ngi bokk biir Pastef am juróom benn candidat euh, Pastef parce que Pastef am nañ seen juróom-benn candidat mooy seen candidat principal Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye El Malick Ndiaye Guy Marius Abbas Fall ak Birame Souleye mooy juróom-benn candidat Pastef yi comme ni APR également amee juróomi candidat yu ñëpp xam muy Amadou Ba ak ñi ma fi lim sànq muy ñeent ñi ma lim sànq waa léegi ñoom ñu mën leen koo nangul ba noppi nag Amadou Ba mi nga xam ni moom euh, ma euh, am na. Euh, ay yeneen candidat nekk ci suufam war a jàmmarloo ak anti système bi ñu ni léegi candidat principal bi Ousmane Sonko yow bul am ay ay candidat yu ànd ak yow mais loolu loolu loolu ban logique la léegi nag ni système bi amee tamit yeneen candidat yu fa nekk ci boor booba yoo xam ne bokkuñu APR waaye ci système bi lañ bokk noonu la anti système bi tamit amee yeneen candidaa yu bokk ak juróom yu bokkul ak juróom benn candidat euh, Pastef yi parce que man mii di ak yéen bokkuma Pastef mais candidat anti système la man ci candidat anti système bi laa bokk mooy ñi nga xam ni dañoo gis ni système bii fi nekk dañ leen fee war a jële parce que depuis 1960 ñoom ñooy paacoo nguur gi di paasante nguur gi di yàqte suñu alal ànd ak ay France ak i ay alliés France ñooñu ñooy waa système bi